mën na maa dal man mi mën naa dal président Sénégal mën naa dal keneen ku dul président Sénégal mën naa dal sa sama yaay. waaw salaamaaleykum sama gars yi salaamaaleykum. gars yi partagé leen vidéo yi parce que tey war nañu gën a mën a waxtaan tey war nañu gën a waxtaan am na lu. am na ay mbir yu garaaw a garaaw garaaw yu nekk ci kaw Sénégal. bu fekkee ne déggoo mu baax jëlal sa loxo nga def ko nit sa nopp rek nga xool nga jël sa beneen loxo nga def nii xoolal day mel ne baaful barki sëñ Fallou day mel ne baaful loolu ci déglu la bokk Amérique laa ko jànge ma jàngal leen ko yéen waa Sénégal pour ñu dégloon te ngir yàlla ngeen partager vidéo yi bu ko defee ñu bañ a toog di nettali xam nga ñun ñun. ñun ay taaliba Serigne Touba lañ Baye Fall limay may wax ni sama xol la ko ci be ñun ay taaliba Serigne Touba lañ ta deglon ta dafa jot am lo xamanteni du zahir batin la bu ñu demee ba ay xale xale xale bu ndaw xale bu ndaw bu doog jiddu mëna gula defal lepp mëna gula defal bopam dara xamali wala ay waajuram sàmmatuñ ko li sëñ Saliou doon jooy sàmm leen gone yi wattul leen ma gone yi sàmm leen gone yi wattul leen ma gone yi sëñ Saliou di ko jooy chaque jour chaque jour sëriñ Saliou di ko jooy léegi ñun ñu ñuy wéy ñuy xëy di waate sëñ Saliou di waate sëriñ Touba di waate di waate kilifa yu baax yi nekk Sénégal ba pare xam nga di di di mën na maa dal man mi mën naa dal président Sénégal mën naa dal keneen ku dul président Sénégal mën naa dal sax sama yaay ba pare ñëpp toog di seetaan fan yëpp yéen ñu dégg may wax ay docteurs yoo xamante ni xam nga seen licence yi ñu yor dañ koo jënd man tôlier laay def fii Amérique wala mécanicien wala dem marché jaayi su ma demee marché marché doxul sax damay lalli sama taabal dem sama yoon seeti beneen marché bu baax ma lal fa sama taabal bu ma demee hôpital bëgg a faju docteur bi mënu maa faj xam li ma wax li war ci mën yëpp mënu koo def lan moo tax mu di ma téye lan moo tax docteur war a téye malaat boo xamante ni wóor na ko ne mënul ci moom dara téye ko bu mu neex ko mu delloo ko këram delloo ko këram. sama gars yi ñun ay taalibe lañ de barki sëñ Bamba ñun ay taalibe lañ te loolu dafa tax ma dagg sama liggéey may ñaan yàlla fépp fu nit nekk ci àdduna bi fépp fu nit nekk ci àdduna bi nga jël xale boobu nga def ko comme sa doom nga def ko rek comme sa doom tey buñ la woowoon ne la sa doom xam li ma la wax xam nga dafa dafa dafa daanu wala dafa lakk wala dafa damm wala dara xam nga réaction bi ñëw ci yow fépp fu nit nekk ci àdduna bi nga jël xale boobu nga def ko comme sa doom nga xool Baay Faal Serigne Touba nekkul loo xamante ni da ngay xëy rek di ko waate de di ko di waat rek parce que Serigne Touba dafa am lu mu doon jëf lu mu doon jëf moo tax li mu doon jëf moo tax ñun ñu nekk ci xare bi ba tey bu ko kon bu fekkoon na jëfaluñu dara barki Serigne Bamba tey du ñu nekk ci xare bi du ñu nekk ci xare bi te Serigne Touba. sëriñ Tuubaa xaadim rasool nekkul ci làmmiñ bi nekkul fii nekkul ci photo bii photo bii nii xam nga ma la daf lay fàttali rek du photo bi du photo bi nga taf sa néeg rek di ko xool sëriñ Tuubaa ci xol lay nekk day nekk dafa nekk loo xamante ni ci xol la nekk jëf ci li mu doon jëf maanaam di yëngatu ci jëf yu baax yi xaadim rasool doon yëngatu maam alaaji Malick noonu kilifa diine yi noonu mais Sénégal yéen a ngi jooy ay accident yéen a ngi jooy lu nekk ngeen koy jooy te xam ngeen li ko mën a faj fàttaliku ngeen maam Abdou Aziz baax fekkee ne faalewu leen Assane Diouf ngeen delluwaat ay 95 ba 90 xam nga 95 ba 97 boobu ngeen ngeen jël kasetu maam Abdou Aziz Dabakh yi ngeen dégluwaat ko xam nga ngeen commencé ci même temps boobu xamal li ma wax ba 2007 ngeen déglu sëñ Saliou lan la leen daan digal ba ci yéen. yal na la yàlla fay doxal wax leen ma amiin wan la nga tekki foo